bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki xam sa diine ñoo ngi ginnaaw bi ñu sante yàlla mi nga xam ne aji màgg la te kawe na te ku wéet ci ay turam la ak i melokaanam ak i jëfam ñoo ngi koy sant ci xéewal yi nga xam ne du noppi di ko dotti sunu kaw ñoo koy sant ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu defal ba ñu doon ay jullit te topp sunna yonente sallallahu alayhi ñoo ngi julli tey sëlmal ci sunu yonente muy Muhammad di doomi Abdallah yal na yàlla kontaan ci moom tey sotti tey dotti ay waami xéewal ñoo ngi ñaanal ay soxnaam ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jàppale woon ci yenu bu diis boobu ñoo ngi ñaanal ak ay jege ñaale ma ci doomam yal na yàlla kontaan ci ñoom ñoo ngi ñaanal saxaaba yi nga xam ne ñoo yenu woon leeru quraan ak sunna ñoom ñi nga xam ne jàppale woon nañ ko ci yen bu diis boobu ñoom ñoo suuxatu woon islaam ci seen kartan ci seen doole ci seen xam-xam waaye ci seen alal ak seen bakkan yal na yàlla kontaan ci ñoom kontaan ci képp koo xam ne ni sokki nga ab jéego topp seen yoon ba bis penc doomu ndey ko nañ ko xamee ci waxtu bi ci àjjuma bu ne xam sa diine dafay dellu si di leen dëkkal ay waxtaan yoo xam ne dafay jëm ci wàllu diine tey yàlla dafa dogal ñu am sunu cheikh sunu oustaz muy docteur Mouhammad Ahmad loo kon ni ko xame fatawa kon tey dañoo dellusiwaat indi fatawa yàlla dogal na fatawa yi day bëri bëri waaye boo xam ne ni euh, di mën a laaj sax laaj bi yàlla du dogal mu bokk ci nga xam ne dañ koy tontu waaye incha allahu rabbi doo déggu sa laaj bi nga xam ne laaj bi dina ñëw ndaxte laaj yëpp dinañ ko ko jotale mbokk yi ni ngeen ko xam ne xam sa diine yemul rek fii ci rajo bi waaye yàlla dafa dogal am na site muy site bi nga xam ne ni nga fa mën a dem jàng sa diine 24 hour muy www daat xam sa diine daat net wala du fekkee bëgg nga dugg ci salon bi ngoon gu ne dafay ubbi muy www daat xam sa xam salon daat com boo leen fa demee incha allah xamsalon dot com wala xamsalon dot net incha allah di nga mun a jokkoo ak mbokki jàng sa diine waaye kon ngeen ko xamee xam sa diine am na numéro boo xam ne dina ci wootee di nga déglu rajo bi bis ba bis bi dellu si muy 24 hours numéro bi dafay nekk 213 493 0134 ma bamtu ko 213 493 0134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 di sant sunu borom tabaraka wa taala ci del ci del si ànd ak yéen ci jotaay bi di alfatawa di sant ndok mi nga xam ne moo nekk ci xàll gi suñ mbokk jaabir dinaa dafa am lu xaw a tardé tuuti ci waxtu bi kon dañuy daal di dugg rek ci laaj yi fi ñëw ndax xaw naa ko tuuti laaj bi jëkk borom dafa wax ne ndax wér na ne ñaari waa juri yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkuñu àjjana maanaam ña nga sa war a mu ne daf koo dégg daal ci ab waxkat boo xam ne da ko wax moom mii di borom laaj bi nag nee na loolu choqué na ko loolu ala kulli xaal li muy dénk suñ bopp di ko dénk mbokk yi te yàgg nañ leen ko wax moo di bépp masala boo xam ne jëf teguwu ci jarut nit ko di ca sonne masala de ba noppi mën naa indi fitna masala yu mel noonu borom xam-xam yi dañ wattandiku ci géew yi nga xam ne géewi public la nga xam ne ku jóg ku nekk mën faa toog di lu mel ne xutba ajjuma lu mel ne waxtaan yi ñuy waxtaan muy jàll lu mel ne waxtaanu rajo dafa am yi ko war a wax muy jëriñ ak yoo xam ne boo ko waxee du jëriñ waaye day lor moo tax dañuy wax ne nit ñi booy wax ñoom da ngay wax ñoom la tolloog seeni xel ndax lu dul loolu mën nga leen a fitnaal ci diine yàlla ji te boobaa loolu lor lay doon yoo xam ne njariñ la nga ci waroon a jël jële bàkkaar nga ci ngi jële faf te it ndax jullit yi dañoo xam seen diine ba mu mat sëkk lépp lu leen war ci seen pas-pas ndax xam nañ ko ndax lépp lu leen war ci seen i jaamu yàlla xam nañ ko ndax lépp lu leen war ci seen i jikko xam nañ ko ba deseetuñ dara lu dul gëstu ñaari waajur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am la ñu nekk loolu ab dénkaane la boo xam ne dañ ciy tàmbale ci dénk mbokk yi nga xam ne ñooy gëstoo euh, mbir yu mel noonu ak di ko waxtaane ci waxtaan yoo xam ne mbooloo nit ñooy àndandoo di ko déglu xamal li ma ci mooy ëpp yi daanaka daf caa nekkul loolu moo tax euh, question boobu dañuy jégglu mbokk moomu ngir dañ ko tontu ci loolu dadi nag boroom xam-xam yi xam ne ñooy gëstoonte ak ndongo yi nekk ca daara yi di gëstu di xool la wér ak yu wérut lu mel noonu ñoom mën nañoo waxtaane lu jëm ci loolu waaye nag bu dee waxtaan woo xam ne daa jëm ci mbooloo mi yu mel noonu dañuy laaye biir mbokk yi ñu wattandiku di ko wax waxtaane moo tax duñ ca sori lool ka ca tegu def ne imaam ji bu xutba yat wi muy yar maanaam bant bi léeg-léeg mën naa doon aw jàkk wala mu doon aw yat wala bant wala sox ak xala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu daan ko yor xala buñ ko waxee mooy li ñuy jëfandikoo ci wàllu fett nga xam ne fett gi doon bant bu dëng boo xam ne buñ sa roofee beneen bant ba boo tiiree bant ba ca des mooy dem bant bi dul dem nga di ko téye boobu moo tudd xala léeg-léeg daana ko yore ale kulli xaal ñu xam yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam daana xutba ajjuma ak lu dul ajjuma di yor yat wala mu yor bant boo xam ne aw jàkk lay nuru wala muy jaafi wala muy ak fet ci nekk yonente bi sallallahu alayhi waalihi am lenn ci ngir yi ñoo xam ne dañoo gis ne loolu kon sunna la nit ki xutba mu yor dara waaye li gën a wér te mu xaqikoon yi ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo gën a xóotal ci wàllu xam-xam dañoo gis ne loola lu tombe la maanaam dafa fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci doxalinam moo di daf daan yor ngànnaay fu mu toll ku ne dana yor loo xam ne nit ki mën na cee défendre boppam ak lu mu néew néew mën naa doon yet mën naa doon jaasi mën naa doon leneen moo xam dafa julli si julli julli farata teg ko ci kanamam wala dafa nekk ci jàkka ji nàbb ko nekk ci biir xutba bi da xutba wala dafa nekk ci beneen place waaye lu gën a bari ci dox yu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf daan yor dara loo xam ne place u ngànnaay la daan toog saxaaba yeeg lu ëpp ci ñoom noonu lañ ko daan doxale loolu nag dañ doon dund ci ab situation boo xam ne bu doy waar la woon ndax nekkuñu woon ci sécurité comme niñ ko yonente bi sallallahu alayhi wa a toll woon na ay jamono yoo xam ne dafa yoroon ay ay garde yoo xam ne suy jóg ñoo koy garde loola teewul woon moom ci boppam mu yor ngànnaay loo xam ne dana mën a défendre boppam bi mu demee nag ba suñu borom tabaraka wa taala wàcce ci moom wallahu yaasimuka min annaas yàlla dana la musal ci nit ñi maanaam duñu la lor ci la xëy nag yeewi ñi nga xam ne ñoo ko doon garde ne leen mën ngeen a dem nag léegi kon loolu li nga ciy dégg rek mooy nekkoon nañ ci euh, benn béréb boo xam ne sécurité ba demul woon noonu ndax noon ya woon nañ te bari woon nañ ay pexe ñu ngi woon ci madina juif yaa nga fa woon yeneen i noona nga fa naafeq yi ak yu mel noonu yoo xam ne ñeen ñi ci nekk seen i pexe ak seen i jiima berte fenn fu nekk la mën a jóge kon loolu waraloon na nit ñi ñi faral di dox di yor ngànnaay loolu borom xam-xam ci ñoom ku mel ne Cheikh al-Islam ak ñeneen dañoo gis ne ŋàbb gim mu daan ŋàbb bant boobu ci biir kaadar boobu la duggoon waaye doonut loo xam ne daa joteeg julli ajjuma dara kon daal lam koy wax ci gàttal ko mooy ki ko yor di julli si àjjuma kenn ko ne eh, déet waaye bul yor bant di julli si àjjuma su ko defee tam lu baax a baax la waaye nag aggut ci ñeneen nag sunna la boo xam ne itam ku ko bàyyi dañu daal di wax ne bàyyi nga sunna léeg-léeg da gis jàkka yoo xam ne ca minbar ba dañ fay wéer bant boo xam ne foofa la fii si kay xutba bu ñëwee daal di koy jël yor ko loolu jàpp naa ne mbir ma àggut nag foofa ak ëppal la wala ak ñàkk eh, xam dëgg dëgg dëgg mbir ma ko taxoon a jóg wante doonut loo xam ne lu am ak jote ak julli gi su ko yoree dal kenn du ne ko li nga yor bul ko yor waaye nag su ko yorut itam bu ko kenn ne bàyyi nga sunna wallahu def na ñaari dañ koo mere ab diir bu yàgg boo xam ne dem na ci ay at mu ne ndax yi nga xam ne dañ koo mere yàlla dana nangu ak jaamoom alhamdulilah eh, wattandiku merum ñaari waajur lu jaadu la ci ki nga xam ne kuñ jur la maanaam doom ji dafa war a wattandiku merum ay waajuram ndax doonut loo xam ne lu gën ci moom la ndax koo war a sàkku moom kooku da ngay daw meram itam loolu mooy li ñuy tàmbalee waaye nag faw ñu xam lan moo taxoon waajuram yooyu mere ko su fekkee ne moom du moo tooñ tooñ moom baaxul ci kum mën a doon ku nekk rawatina bu fekkee ne nag ñaari waajur la kon moom jaaduwul woon muy toog ba muy mat at wala muy mat ay weer sax wala muy mat dara waaye dafa waroon a gaaw jéggulu ñaari waajuram yooyu nga xam ne dafa leen a tooñ wala kenn ci ñoom mu daal di koy jéggal su ko defee dundam daal di delluwaat fa mu nekkoon waaye su fekkee ne waajur yi ci boppam ñoo ko tooñ ba noppi mere ko nag su boobaa kenn du ko jàppee loolu gis ko ci bindal bàkkaar ak lu mu ci mën a doon nag la ñuy mën a wax mooy lii mu def am na ci bàkkaar waaye nag pour dogu ne nag jaamu yàlla gam fa def wala julli gi mu julli duñ ko nangu loolu amul benn dalil buy wane ne duñu ko nangu waaye daal merloo ay waajur ci kaw tooñ leen ba noppi daggoog ñoom daal lu ma tey at loolu bakkaar la bu rëy rëy boo xam ne jullit bi war na ko wattandiku war na ko daw ak nu waajur yi mën a mel nag donte ñoo ko tooñ sax jaadu na moom mu ñëw jéem a xool fan lay jaar ba jokku leen ba laa seen xol ba seen xel jël siwaat ñu xam ne ñoo tooñoon jéggalante kenn ku nekk jaar kaw yoon wa war a jaar loolu moo jaadu ci seen diggante waaye nag ak daggante ak moom ci diggante doom ak ay waajuram kooku moom baaxul ci doom baaxul sax ci waajur yi ndax daggoonte diggante jullit ak jullit doonul lu jaadu waxuma laa ko diggante ki jur ak kañ jur kon loolu lu ñuy wattandiku la bakkaar la waaye nag ñi xam ne jotewul dara ak julli ga muy julli ak koor ga su fekkee ne charte yi ci war a ànd ànd na ca te yey tee ñu nangu jëf wattandiku na ko du tee nag mu on mën a am yaakaar ci ne ak jaamu yàlla am danañ ko nangu ki nga xam ko ndax mën naa fay nuyoo boobu yi bu fekkee ci wax la day mën ta fay wax jooju waaye nag mën naa junj ci loxoom def junj boo xam ne danañ ci xamane lim ci jublu mooy kii xam ne day julli loolu moo tee mu fay ko nuyoo bu mel noonu kon loolu su boobaa mooy jaadu ci moom waaye du jaadu nag mu di ko fay ci ay wax kii def ne daal moom daa doon koo xam ne nitu càmmooñ la maanaam ab càmmooñam la gën a mën a jëfandikoo ci ab jooram daf ciy bind te léeg-léeg sax mën na ci bind alquran wala hadis wala lu demee noonu muy laaj nag lan mooy atteb loolu ñu koy xamal ne alhamdulilah nit ki loxo bi nga xam ne mooy loxo ndeyjooram la chaque ne mooy loxo biñ jagleel lépp loo xam ne lu sell la lu baax la lu laab la loolu dañ koy faral di féetale loxo bi nga xam ne mooy bu ndeyjoor bu càmmoñ bi nag ñu féetale ko safaanub yooyu maanaam contraire ba loolu nag dàqonte wut ak ni am na nit ñoo xam ne yàlla da leen a bind seen loxoom ndeyjoor ñu ci lu bari seen loxo càmmoñ rek lañ ko man su fekkee ne moom mën naa tàggat loxoom jooram ba muy jëfandikoo yooyu yi mu tudd lu mel ne bind ak lu ko nuru su boobaa loola mooy doon la gën su fekkee ne mënu ko nag amul benn dalil bu koy wane ne ko boo bind alxuraan daganut nga bind ko ci sa loxo càmmoñ wala booy def leneen daganut su fekkee ne loola moo ko jub ndax léeg-léeg sax nga yër ci lenn ci téere yi nga xam ne ñooy bind ci wàllu wér-gi-yaram ñuy wax ne ki nga xam ne loolu euh, càmmoñ da koo gën a jublu am na bindiin woo xam ne moo nekk ci boppam ci ak yuuram goo xam ne mooy tax wet googu gën koo jubu te jéem koo forcé jéem koo jëmale ci geneenu wet loolu mën na koo jural lenn ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram loolu su fekkee wér na moom itam lu mat a bàyyi xel la waaye ala kulli xaal euh, lu koy tere loola daal nekku ci lekk nag moom lu mën a xew na jéem a fexe ba loxol lay joram lay lekke kooku moom par force na lekk loxol lay joram yeneen yi ci des it su fekkee mën na cee tàggatu ndànk-ndànk ba mu ñëw te lor amu ci lu koy yàqal dara su boobaa mooy jën su fekkee ragal na ne mën na ko jural lor nag lu mel ne mbind maag yu mel noonu yëpp bu ko bàyyee loxol càmmoñam doonut loo xam ne lu koy wàññi dara la su ci tegu dafay laaj laaj boo xam ne bari na lu mu jaar mooy eh, yëkkati alxuraan moo xam ak nga yor ko di ko jàng te fekk amuloon jàpp mu ne moom day faral di am jafe-jafe daal ci foo toll ku nekk yorum jàpp xaw na cee am tuuti jafe-jafe ñi di ko xamal ne njàpp mi dafa doon loo xam ne mooy li gën mooy li waaye su fekkee ne yorul nag am taj moo xam ne àgg na ci janaaba walla mu nekk jigéen di nekk ci reegal kooku mu jàng alxuraan te fekk ne jàppul kooku doonut loo xam ne luñ ko tere la waaye su jàppee nag moo gën moo gën a sell moo gën a baax waaye su mënta jàpp rek loolu bu mu ko tey jàng alxuraan wallahu taala alam kii nee na mi ngi nekk ci Québec xam naa ci Canada nee na dafa am ay ndimmal yoo xam ne dañuy ñëw jóge ci ñoo xam ne duñ ay jullit jëm ci ñi nga xam ne ñooy julit yi ndax dagan na ci ab julit mu jëfandikoo ndimmal yooyu ak it ndax jaadu na e, jullit bi sukkandiku ci loolu rek ba tax du liggéey alhamdulilah su fekkee ay ndimmal la yoo xam ne dañoo jóge ci ñu dul jullit wala ku jullit ñëw ci ñi nga xam ne ñooy jullit yi ñaari charte lay am daal di dagan ci jullit bi benn bi mooy ndimmal lii na doon lu dagan a jëfandikoo maanaam su ko joxoon loo xam ne lu xaraam ci jullit la loolu du dagan mu di ko jël kon day doon loo xam ne lu dagan jëfandikoo la su fekkee alal la lu mel ne xaalis wala loo xam ne lu mel ne ay tiisu yi ñuy sol la wala lu mel ne tapis yi ñuy lal ci jàkka la wala yu nuróog yooyu nga xam ne lu dagan jullit bi jëfandikoo la kon kooku benn sart bu sotti na beneen bi ci des mooy buñ ko tegal nag benn condition boo xam ne suy jëfandikoo loolu lële da war te loolee koy war fekk mu doon loo xam ne diineem nanguwu ko su fekkee condition bu mel noonu am na ci du dagan mu di ko jëfandikoo ñaar yooyu nag suñu benn amut xam ne liñ ko jox lu dagan la te joxuñu ko ci kaw benn condition te moom aajo na ko kon sañ na koo jël waaye nag mu xam lenn li mottale laaj bi mooy ndax dagan na sukkandiku ci loolu bañ a liggéey déedéet jullit bi ginnaaw mi ngi ànd ak wér gi yaramam ànd akum xelam yor ay cër kooku dafa war liggéey li ñëpp daa gëm ne moom ci jëmmi boppam dafa war a dimbalee waaye warta toog ñu di ko dimbali donte ña koy dimbali sax ay jullit lañ loolu warta tax mu toog bañ liggéey waxuma laa nag su fekkee ña ko dimbali doonuñu ñoo xam ne dañ koy dimbali ngir bëgg ko waaye dañ koy dimbali jomb ngir yeneen i jubluwaay kon su boobaa yi gën a feddaliku mu gën a góorgóorlu gën a yëg ne moom ñi dafa war a dem liggéeyi waaye warta sukkandiku ci ay njëmmal ndax kat ku yàgg ci yu mel noonu bu yàggee loo daw daw daw dana mujj lay dale dal la li wolof yi faral di wax ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa koo yàgg jox bu yàggee nga rus ko ba mën na laa dugal ci yoo xam a dugg kii def ne daa bëgg ñu résuméel ko lu jëm ci wàllu pas-pasu ashariya euh, al ashariya dañ leen di askane ci kilifa gu ñuy wax abul xasan al ashari abul xasan al ashari ci mag ña la boroomub xam-xam la woon boo xam ne dafa jaar ci ay étape ci dundam daa bokkoon ci ngir mi ñuy wax al mutazila nga xam ne dañoo weddi mboolem melokaani suñu borom tabaraka wa taala moo xam ñëw na ci alxuraan moo xam ñëw na ci sunna bi mu demee ci loolu ba dund ca diir bu yàgg ci la xamee ne loolu ay neen la mu jóge ci ñëw ci li ñu tudde ci eh, al kullaabiya loolu al ashariya al kullaabiya boobu dañuy nangu lenn ci melokaani suñu borom tabaraka wa taala am melokaan yoo xam ne duñ ko nangu maanaam dañuy xaajale daal melokaani suñu borom muy sifaatullah nangu yenn yi yeneen yi duñ ko nangu yi ñuy nangu nee nañ yooyu dafa sax ci xel maanaam xel daf ko nangu lu mel ne ne suñ borom tabaraka ko taala day dund lu mel ne am na kàttan lu mel ne am na ak nammeel maanaam loo xam ne su su nammee dara def ko ñu ne yi moom xel da koo nangu parce ku bind nit ku mën a doon yow si jëm bopp kuy dund nga ndax yow yaa joxe dund ki kuy am kàttan yaa ko jox kàttan kon ku yo ku am kàttan nga kuy dégg yaa ko jox ab dégg kon ku mën a dégg nga yaa ko jox ak gis kon ku gis nga noonu lañ ko toppee ba mu doon juróom-ñaari melokaan ñu ne yii nag moo sax am na yeneen melokaan yi nga xam ne nag ay xabaar la yu ñëw moo xam daa nekk ci alxuraan wala daa nekk ci sunna ñu am ci benn taxawaay lu mel ne li wax ne suñ borom tabaraka wa taala day dikk yowmal qiyaam pour atte nit ñi ñu ne melokaan yu mel noonu daal wala liy wax ne suñ borom tabaraka wa taala am na ab loxo am na bët melokaan yooyu ñu ne ah bu fekkee daa ci xadis te xadis nekk li ñu tuddee xadisu ahad kon kooku kenn du ko jëfandikoo ci loolu ngir saxal melokaan yooyu bu dee ci alxuraan itam dañ koy taawil maanaam dañ koy interpréter firee ko neneen mu bokkul ak noonu yi ñu koy déggee ci kaw kon ñoom seen problème dëgg-dëgg fi mu nekk ñoom al ashar yi li leen wuteeg wutale ak ahlu sunna wal jamaa ñu nekk ci mazhabu salaf moo di ne ñoom dañoo nangu wut mboolem sikaati sunu borom tabaraka wa taala ay melokaanam dañoo nangu juróom-ñaari melokaan yi yeneen yi ci dëkk ñu interpréter ko wala ñu weddi ko loolu nag kooku la seen juumte nekk ndax bépp melokaan boo xam ne daa ñëw ci alquran wala mu ñëw ci sunna kooku jullit bi amu ca lenn lu dul saxal ko ahlu sunna wal jamaa loolu taxawaay ci bépp texte bi ñëw ci alquran wala ci sunna di wax ne sun borom tabaraka wa taala nii la mel moo xam dana gis moo xam dana am na bët moo xam am na loxo moo xam day dikk moo xam day wàcc ba agsi ci asamaan moo xam day mer bépp melokaan boo xam ne ñëw na al alxuraan wala mu ñëw ci sunna dañ koy gëm te it seen ngir moomu ci boppam mooy li dëppoo ak xel ndax ashari yoon yi ak mu'taziloon mu'tazile yi dafa am fuñ daje dañ ne suñ saxalee eh, melokaan yi kon day mel ne dañ koo nuróole ak mbindeef daw googu yi ñuy daw nu róole ko ak mbindeef nag tax ñu weddi lañu ñu woon ci alxuraan wala ñu interprété ko kooku njuumte la ndax kat loolu yi ñu nangu ne sax na muy ak dund akub dégg akub gis buñ fàtte ne yooyu nit am na ko waaye soo leen laajoon lu tax nga nangoo saxal ne yàlla dana dund te nit di dund te lool nu woo leen dañ lay wax ne ah dund ki nga xam ne mooy maye dund bokkul ak dund ki may dund loolu dëgg la waaye nag ba tey itam ñëw suñu borom tabaraka wa taala mën nañ faa wax lu mel noonu bëtam mën nañ faa wax lu mel noonu ab loxoom mën nañ faa wax lu mel noonu kon daal li nga xam ne mooy li wér mooy melokaani suñu borom tabaraka wa taala ak melokaani mbindeef bokkuñu jotewuñ dara soree nañ waaye nag du tee nag melokaan gi suñu borom tabaraka wa taala saxalal boppam ñu saxal ko kon njuumtal al ashariya bi leen wuutale ak ahlu sunna wal jamaa mooy ci saxal melokaani suñu borom tabaraka wa taala lépp dañoo saxal juróom-ñaar yeeg weddi la ca des wala ñu interprété ko mooy tawil ko ñu xam ne nag abul xasan al ashari ci boppam pas-pas boobu moom génnoon na ci al imam zahabi mi ngi wax ne al ashari ni abul xasan gannaaw boo xamee ne ñëw na ci ngërëm ibnu said ibnu kullaab moom dund na ci ab diir bi mu gisee ñi nga xam ne ñooy xanaabila yi ñu nekk ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa dafa dem ba eh, ñii kat nekkuñu ci dëgg maanaam di saxal lenn ci sifaat yi di weddi leneen loolu doonul loo xam ne lu mën a nekk la loola moo waral ñu bàyyi eh, Abul Hasan bàyyi pas-pas boobu eh, bind ay téere yoo xam ne it day wane ne génnoon na ci loola téere yooyu bokk na ci téere bi ñuy wax al ibaana ibaana boobu da ko bind ci mazhabu salaf bokk na ci itam téere bi nga xam ne mooy maqalaatul islaamiyin téere bu rëy la boo xam ne boo ko jàngee te settantal ko da nga gis ne lam cay saxal li ci bare bare bari day wane ni génnoon na ca mazhab boobu ñuy wax alkullaabiya téereem bi ñuy wax risaalatun ila ahli saxor ba tey itam noona la demee am na beneen téere bu mag bu mu bind boo xam ne zahab yi mi ngi koy tudd nee na moom itam téere la boo xam ne dafa bokk ci téere yi réer waaye nee na moo ñeenteel téere yooyu wane ne Abul Xasan al Ashari bàyyi woon na pas-pasu Ashari yi ñëw ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa dadi nag li nga xam ne moo siiw ci monde islamique bi mooy étape boobu mu doon dund nekk ku laabiya moo tax ñi koy dund ñëpp ci aalamul islami bi pas-pasu Ashari yi lañ koy tudde di ko du di ko tuddee Abul Xasan al Ashari konte moom ci jëmmi boppam génnoon na ci booba pas-pas wallahu taala alam kii nee na dafa julli suba yalu rakka bu jëkk bi bi mu ñëwee mu biral rakka ñaareel bi mu ne bi mu sëlmalee mu jàppoon ne daa war a sujjóot waaye nee na mu fàtte sujjóot bu ba déplacé ah bi mu demee nag ba fàttaliku ko nee na daal amul benn pexe lu dul dafa baamtuwaat julli ga muy laaj nag ndax loolu ci jëmmi boppam noonu mu def noonu la wala nan la waroon a def alhamdulilah su fekkee ne da doon julli nga xam ne moom rek mooy julli maanaam jiitewul kenn te dafa mel ne noonu la ndax su fekkoon ne mbooloo ngi ci gannaawam su yeloo mbooloo mi danañ ko wax mu bàyyi yelu gi mbooloo mi danañ ko wax mu bàyyi yelu gi su fekkee ne nag kon yelu na ba jeexal rakkaaba kenn wax ko dara loolu daf may won ne kon moom dong moo doon julli nit ki nag su fekkee moom dong mooy julli am njàngam nekkul farata mu di ko yëkkati ca kaw man mën ngaa julli julli suba goo xam ne da jàng ci suuf njàng moo xam ne yow dong yaa ko dégg kon loolu yi mu def su fekkee moom dong moo doon julli kooku sujjóot waru ko ci woon jërut woon muy sujjóot bu ko neexee mën naa jàng ci ñaari rakkaay yépp njàng moo xam ne moo suufe la ndax bu koy yëkkati jamono yooyu jàngalut kenn koo xam ne moo ànd ak moom di ko déglu kon ñu xam ne yàllu gi ak biral gi ci julli doonut loo xam ne dañ ko def noonu rek nga xam ne foo mën a nekk fu nekk dañ ko def waaye su la nga jaar ni moo xam ne mu suufe la te fekk julli bi ngay julli julli biral la ci kaw ne nekkoo ak kenn kon loolu mu def noonu su fekkee moom doo nga doon julli daal su jóot waru ci euh, loolu moo tax fàtte gam ko fàtte amul woon benn problème baa baamu gam mu julli ga it lu mu def la waaye doonut loo xam ne lu war ci moom la woon maanaam nekkul woon waajib su ko neexoon mu bañ koo def te du ko yàqal dara wallahu taala alam ki nga xam ne ca ngaayul ndax gën a wér mu jëkk a sangu cangaayul saabu ba noppi door a sangu cangaayul janaaba dara nekku ci am solo moo mooy cangaayul janaaba yi na doon loo xam ne yéene na ko sangoo ko niñ koy sangoo moo xam la jiitu loolu sangoo woon na saabu wala sangoo woon na leneen waaye rek ne yeneen ne cangaayul janaaba lay sangu ci xolam su ko defee eh, jaarale ko na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaarale ci ay su noppee sangu na cangaayul janaaba lu aju ci eh, gaaw a génn ci jàkka ji buñ sëlmalee mu ne dafa gis xadis boo xam ne day wane ne ñoo loolu ci mandargay naafeq la bokk déedéet àggul nag foofu waaye na xadis bi ñëw ci boobu xadis buñ jëm la waaye nag gaaw a génn ci jàkka ji ci lu dul loolu tere nañ ko maanaam su amul sabab loolu tere nañ ko waxuñu ne ci mandargay naafeq la bokk waaye jullit bi waru koo lu tax parce que ay lor yu bari daf cee nekk ñi nga xam ne buñ jullee rek daal di gaaw jóg ne bëri di génn ñàkk a def si kër yi nga waroon a def bi nga toogee looloo ngi ci yàkkamti bu ëpp bi nga xam ne boo àggee ci bunt yee di buuxante di raj-raj loo lor ju mel noonu mu ngi ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tax na sib nañ wala tere nañu nit ki bu sëlmare rek daal dina bëri ci lu dul aajo nag su fekkee aajo nag ko waral yoo xam ne te ñàkk a jóg comme am na la xew ci jàkka ji loo xam ne nit ñi dañu war a génn ci lu gaaw a gaaw su boobaa kenn du ne ko faaw nga toog benn ñaar am na yitte joo xam ne ju ñor la joo xam ne da ko war a julli rek jóg dem doxi ko su boobaa loola mooy li ci war a sos yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn bis boo xam ne dafa julli sëlmal rek daal di jóg génn jàkka ji sunu gaaw gaaw ba julli di sax xaw a tiit saxaaba yi ñu ne lan moo xew ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu def noonu nes tuuti mu delsi leeralal leen lan moo tax mu def noonu mu ne leen dafa am alal yoo xam ne daf fee ñëwoon joo xam ne dañ koo waroon a séddale man naroon koo fàtte fàtte séddale balaa nit ñi tasaaroo dañ ko waroon a séddale lu jiitu julli ñi julli ba noppi ma bañ ragal koo fàtte loolu moo tax bañ mu fanaan ca kër ga moo tax ma gaaw comme noonu yi ngeen ma gisee tam génne ko ngir séddale ko daal di koy séddale ñu xam kon lan moo taxoon mu gaaw a génn kon su fekkee am na sabab boo xam ne moo tax nit ki gaaw a génn boo xam ne bu sharia nangu la su boobaa gaaw gaa génn dara nekk ci waaye nag baaxoo rek di njëkkante ci bu julli jeexee loolu moom doonut loo xam ne lu gën la wallahu taala alam ndax dagan na ñuy def euh, li ñuy wax autopsie maanaam ubbi yaramu jullit boo xam ne dafa faatu ubbi yaramu ak jullit boo xam ne dafa faatu lay cosaan day mooy jullit bi dañ koy teral teral aw yaramam ci ak dundam ak ci ak deem loolu moo tax dañuy wax ne autopsie exception la boo xam ne du dagan lu dul ci ay mbir yu teew ñooy tax mu dagan yooyu bokk na ci mooy su fekkoon ne kookiy faatu am na cër bu nekk ci moom boo xam ne cër bu baax la boo xam ne am na beneen bakkan boo xam ne dafa nar a faatu su fekkee ne cër boobu defaluñ ko ko dañ ko cee bëgg a xettali te fekk cër boobu yi ñi war a jële ci moom di ko defal kële moom waa ji nangu woon na ko ci dundam am na ñoo xam ne dañuy bind ne su ma génnee àdduna te fekk am naa cër bu baax bu mën a xettali bakkan dañ ko jox cër boobu am na ñoo xam ne dañuy bind loolu ci seen dénkaane su fekkee lu mel noonu am na kooku loolu baax na su ko bindul woon te fekk ñi nga xam ne ñooy ay donoom yi doon ay jullit comme moom nangu nañ loolu bëgg cee xettali bakkan bi loolu itam tuyaaba la juy dellu ci moom ndax borom bi tabaraka wa taala nee na ku xettali bakkan mel na ne xettali nga doomu aadama yi wa man axyaaha fa ka annama axya nnaasa jamian képp koo xam ne dundal nga ko mel na ne dundal nga bakkan yépp kon su fekkee lu mel noonu la loolu dagan na beneen bi ci des mooy su fekkee ni jigéen ëmb na ba toll ci ab diggante yàlla dogal moom si boppam mu génn àdduna moom ndaw si ëmb ñu gis ne doom ji nekk ci biiram fët faatuwul moom maanaam mi ngi yëngu kooku su boobaa yoon joxe na ñu xotti ko génne doom ja ndaxte lee mu mën a dund su boobaa dana dagal bokk na ci yooyu itam koo xam ne dafa wannoon alal ju bari faatuwaale ko su boobaa sharia may na ñu xotti biir bu génne alal jooju comme ku wannoon ab or bu baree baree bari ndax ñuy xaru léeg-léeg ñiy jëfandikoo lu leen neex lu ne mën naa xaru fekk dafa war na or bu bari yóbbaale ko su boobaa itam sharia day joxe mais nañ ko xar génne la nekk ca biiram ci alal si kon daal am na ay mbir yoo xam ne su amee Euh, autopsie dagat na mën nañ cee yéegal yi tam li nga xam ne mooy am mooy su nit ki faatoo ñu bëgg a gëstu ba xam lan moo ko rey euh, ci wàllu yoon ngir ñu xam bu fekkee des koo tooñ ñu xam ne kii des koo tooñ lar ñu man a teg ñooñee ci seen kaw la la yell ci ñoom su boobaa kooku sharia mayee ne moom itam ñu autopsie ko seet ba xam lan mooy la ji tax moom waa ji mu faatu ci anam gi mu faatoo su boobaa daal sabab yooyu yi nga xam ne moom laa tudd ak yu nuroog moom sharia dana nangu ñu def loolu waaye nag lay cosaan moom mooy yaramu jullit bu faatoo kenn du ko laal kenn ko def loolu ci dafa laaj boo xam ne xam naa ne euh, xaw naa desa di leer tuuti waaye jombul euh, li ko teg moom la ndax lenn ci ay mbir yoo xam ne dañ koy jëfandikoo di ko teg ci ay xaraf yoo xam ne daal dañuy ñëw di lim dara jël valeur ay numéro man caa génne ay xam-xam yoo xam ne xëy na dañ ciy jëfandikoo lu jëm ci wàllu jabar wala yu roog moomu ndax ñooñu rek lañ xamee lu mel noonu ndax araf yëpp dañ koy jéem a wutal benn xaraf bu ne ab nombre boo xam ne bu ñu waxee noppee dañuy wax ne chiffre boobu mooy tolloo ak nangam nangam jooju ñu jël ko ne nangam yoon dañ ko wér moo xam nit lañ bëgg a lor wala nit lañ bëgg a jéem a andil lu ko jariñ ci li ñu wax wala ñaari nit lañ bëgg a boole ñu jege wala ñu bëggante wala ñaari nit lañ bëgg a tàqale xeetu njabar la ñuy faral di jëfandikoo ci yu mel noonu kon loola du doon loo xam ne lu dagat la chiffre yooyu nag su fekkee ne lim rek moo ko tax a jóg nag comme li ñuy wax euh, alxuruful hijaiya yi nga xam ne dafa am ab lim comme ñu ne alif mooy benn baa mooy ñaar ba mu jeex kooku moom ci wàllu comptabilité lay dugg waaye doonut loo xam ne dañ koy jëfandikoo ci ak njabar su boobaa dara du ci nekk kon daal jubluwaay ba ca waaj jublu ci chiffre yi ak lim ba ci lay dagane ci lay ñàkk dagane laaj bi ci tegu boroom nee na ndax dana dagan ñuy séddale asaka wala muurum koor ñu zakatul fit ndax dana dagan ñu koy séddale ab lim bu bari ci ay nit maanaam ñi ko yeew doon ñu bari daal ñu séddale leen ko ah alhamdulilah loolu sax moo ciy cosaan ndax uh, kenn ko ne xam na ne baytu maalul muslimina ba mu taxawee nga xam ne li ëpp ci ay source am moo nekkoon asaka baytul maal mboolem jullit yi ñàkk jullit yi nga xam ne euh, sharia da leen a war a jox dara ñooñu ñëpp ci la doon jóge lañ doon am ci la doon jóge kon asaka ji au ñu boole lépp lépp lépp jox ko jenn jëmm maanaam partagé ko ay nit kenn ku nekk jot ca sa xaq tam doon loo xam ne li koy amal njëriñ la noonu la ko sharia bëgg moo xam asaka la moo xam muurum koor la su fekkee rek li nga génne daa doon lu tuuti loo xam ne nag boo ko séddalee ñaari nit wala ñett wala ñeent wala juróom kenn ku ne la nga am du doon lu am solo su boobaa sopp nañ nga seet ku ko aajowoo te boo ko ko joxee mu amal ko njëriñ nga jox ko kooka wallahu aalam kii dafay laaj atteb ruqya maanaam mocc muy laaj ndax mën naa toog palaasu li ñuy wax ndëpp maanaam tudd tudd ruqya bu fekkee ruqya bi ñu jublu mooy mocc gi sax ci sharia mocc gi sax ci sharia day nekk ci alquran wala mu nekk ci sunna wala mu doon ay baat yoo xam ne xam la yu mucc ci ak bokkaale ak lu ko nuru doon ci weneen làkk itam na doon lu mel noonu waaye nag la ñëw ci alxuraan ak sunna daal ci mocc loolu mooy li gën ci façon mooy xeeti mocc yi kooku mooy charte ba jëfandikool alxuraan wala sunna wala bu doonee weneen làkk na doon lu ñu xam lu mucc ci bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su xadis bu wér daf ne gaaral leen ma seeni mocc maanaam na kenn ku ne wax la muy mocce ma dégg daal laa ba'sa bi ruqaa nee na mocc day garaawul maanaam amut lor maa lam yakun fii shirk li feeg bo li feeg bokkaale nekku ci su boobaa wàññiwul dara kon kooku ubbi na fenêtre boo xam ne nit ci mën naa jëfandikoo ci xeeti mocc yi la muy mocc li feeg mucc na ci fikk li feeg mucc na ci shirk muy bokkaale kon loolu mooy charte bi amma nag la ñuy wax ndëpp nga xam ne lépp boo ko seetee fam tàmbalee ba fam yem jaamu lu dul yàlla la maanaam wàllu xërëm la fañ koy tudde tudd ko roqiya boo xam ne mooy bi sharia xam sax daanaka ñoom dañoo war a sore ndax jotewuñ dara la leen bokkaale le fa mu tàmbalee ba fa mu yem ndax kenn ku nekk gis na nañ koy defee mbooloo muy genn xëy benn bis àndandoo dem ci benn bërëb boo xam ne nee nañ béréb booba la ñuy jaamu muy seenub rawaan wala seenu xërëm foofa la nekk ñii di sodd na jëriñu ci dafa ne kooka dana jëriñ wala dana lor wala dana wéral ku feebar wala dana rey nit wala def nangam bëgg a mucc ci waayam xeet yu mel noonu mooy li jaamu ko ci xërëm def naka jekk dañ koy jox rek wenentu waaye loolu mooy jaamu xiram dëgg nag su ko defee kooka mbir la moo xam ne soree na ak mocc ki nga xam ne moom la shariat yi uh, wax su boobaa nag duñu wax ne ndax mën nañ ko ko weccee waaye dañuy wax ne kële jullit du ko laal du ko jege su xamul woon dara ci mocc gisul sax ku ko moccal ba dafa jàpp na ne dafa nar a faatu lay pas-pasam bu dagan mukk muy dem ci ñooñu wala muy déglu la ñuy wax wala muy gëm dara ci ya nga xam ne ndono la ñuy wax wallahu alam kii la boo xam ne ndar la nekk mu ne daal dañuy dund ci ay situation yoo xam ne daal seen diine daal wax dëgg melul nañ ko bëggee woon mu ne nag dafa bëgg bu la yàlla dogalee mu am bac mu daal di arrêté njàng mi daal dem njàngi diine muy laaj nag ay conseil maanaam ñu laajee ko biir daal nga xam noonu mu bëgg a def noonu lam de alhamdulilah ñu ngi bu baax a baax ak yëg-yëgam ci ak aajowoom diine ak yëg gi mu yëgal boppam ne diine ji na mu ko bëggee woon demewul noonu li gën ci moom mooy mu mën a góor góorgóorlu ba organiser fexe ba wax kawam mu teg ko ci anam goo xam ne li ko war ci wàllu njàngum addunaam dana ko mën a jàng ba teg ko ci yoon ba noppi loola du ko yàqal itam njàngum diineen maanaam man leen a boole ñoom ñaar kon li doon gën mooy njàngam mi mu bañ ko arrêté waaye nag mu fexe ba ba organiser ba dugal ci njàngum diineen nga xam ne dana wut waxtu woo xam ne lay def lii ba ak jox ko xaqam ba mu mat sëkk wut nag waxtu woo xam ne dana ca mën a dugal lee saa bu demee ba yëg ni njàngam mële gën a woyof mi njàngam àdduna mi mu gën a njàngam diine mi su ko defee dana mën a am équilibre boo xam ne dana mën a organiser waxtoom ba ñaari soxla yëpp mu su demee it ba yëg ni nag xëy na lim jàng mooy jàng na ba am bac te xëy na doyloo na loolu ndax jómbul jublu àdduna dikkal na ko ay sonn dikkal na ko war naa mën a sukkandiku sax ci bag boobu yi mu am ngir dem liggéeyi ji yenn liggéey yi mu dem di góorgóor di liggéeyal àddunaam organiser waxtoom ba boole ci njàngum diineem loola lu baax la ah su fekkee ne it amul benn responsabilité boo xam ne war na ko ci wàllu àdduna soxlaagul samp kër ay waajuram soxlaaguñ ko day jàpp na ni lim jàng ci njàngum àdduna mi loola doy na ko dafa bëgg a bàyyi nag ci dundam mu dem jàngi diine su na loola kenn ko ko lu baax la waaye jullit bi daal mu bañ a yëg ne eh, boole ñaari jàng yi mën naa nekk loolu moom kenn waru koo yëg ndax mën naa nekk fi muy dellu rek mooy noo organiser sa waxtu yow yow jullit bi kii nee na saa boo xamee ne dem na ca wana wa tuur ndox dana def yi man yëpp ngir set ak laab jëfandikoo am ndox toog ab diir waaye su génnee daal dafay yëg maanaam day sentir ne dafa am ay tooy tooy yu yu des ci moom waaw loolu léeg-léeg mën naa doon loolu yi mu ko teg waaye léeg léegi it mu nekk li ñuy wax proswaas am sikki sàkka nit ki sikki sàkka jàpp ne laabul ndax desiti ndox yooyu muy ragal mën naa doon loo xam ne ndox mi mu doon raxasoo ci boppam moo des am ay tooy tooy mën naa doon loo xam ne it lim ko teg la waaye lu ci mën a xew laaj na moom mu mu nemmiku boppam bu baax maanaam mu vérifier bu baax a baax fexe ba euh, su dematee ci wana waa ba jëfandikoo ndox ba noppi mu jëfandikoo leneen loo xam ne day wowal béréb boobu ba mu wow koŋ su ko defee nag ba mu wow mu dox ba mu yàgg mu gisaat nag lu tooy kon day xam ne lu tooy loolu yi nag kon lu génn la mu tàmbalee jàpp ne kon am na yuy génn ci moom yoo xam ne dañuy génnal seen bopp noonu ci lu dul ak yëgam loolu nag kum gaar xeetu feebar la boo xam ne da ngay seeti ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu ci wàllu médecine ñu tegtal la tegtal yoo xam ne boo ci jaaree loolu dana mën a saafaro wallahu alam soxna si nee na borom këram musique lay liggéeyee nee na bëgg na ko bàyyi nag waaye daa amul beneen liggéey lii laaj bi mooy moom mi ndax day bàyyi alali ci këram ji duutu ci lekk sukkandiku ci li muy am akus néew ànd ak ne loolu muy am doyu ko moo kum njabootam alhamdulilah euh, jëkkër ji ñu ngi rafet lu bëgg a bàyyi doom yi mu bëgg a bàyyi ni ndax lu xaraam la waaye dong doy ni jooju it di wax ne dafa amagut beneen liggéey moo tax mënagu ko bàyyi loolu du noonu maanaam jullit bi bu xasee dem ba yëg ne moom mii am na lu xaraam lu muy def li jaadu ci moom mooy mu daal di bàyyi loola te gëm ànd ak pas-pas ak yaqiin ne képp koo xam ne bàyyi na dara ngir yàlla dana ko wutal lu gën loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran ko kon jéem a bàyyi misik te jéem a gëstu beneenub liggéey boo xam ne bu tedd la bu sell la bu dagan la loolu su ko defee borom bi tabaraka wa taala dana ko ubbil bunt bu baax la kon déng-déng gi jooju jëru ko euh, mu des wàllu soxna si nag su fekkee ne waa ji bàyyiwu ko te it amut leneen lu mu dundee ndax li muy am nee na doyul ko moo ko njabootam su boobaa it nag jëfandiku ci loola rek moo fi sës ndax bul fàtte mukk ne mbir moom yi ci waaji la xaraam waaye bu jógee ci moom jëm ci keneen du xaraam ndax sharia li xaraamal dafa am ñaari xeet am na loo xam ne waxoon nañ ko fi fii ci fatawaa moo di xeetu xaraam yi woo xam ne su ko xasee xaraam kenn mënu koo jëfandikoo ci leen mooy li nga xam ne dafa xaraam sa diggante ak sa borom ba noppi xaraam sa ak sa moroom alal ju mel noonu mënoo koo jëfandikoo misaal mooy alal ji nga xam da koo sàcc xaraam na digganteem ak boroomam ndax boroomam moo xaraamal sàcc waaye xaraam na digganteem ak moroomam ndax daa fab alali moroomam su boobaa jooju alal ab atteem mooy delloo ko boroom su ko mayee nit may ga du wér dañ koy nangu delloo ko boroom dañ ko yëgee suñu tabaxee jàkka du wér dañ ko war a delloo boroom amul lenn lu mu ci mën a def kooku mooy li xaraam sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg sa moroom leneen li ci des mooy li nga xam ne dafa xaraam sa digganteeg sa boroom waaye xaraamul sa digganteeg sa moroom ci alal rek laay wax nag comme lii mu wax nii ci musique yàlla moo xaraamal musique ci liñ gëm mu ñëw ci ay xaddis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu takku kon xaraam na digganteem ak boroomam waaye su defe am ndajem musique am ay doomi aadama ñëw fa yoo xam ne ñoom dañoo bëggal seen bopp musique ñu ñëw def ci seen alal ñooñu seen alal jooju ñu ci def ñàkk nañ ko a maanaam moomatuñ ko su ko jëlee kooku xaraamul digganteem ak moroomam waaye xaraam la digganteem ak boroomam xaraam yin bu mel noonu nag si waa ji la xaraam moom ci boppam waaye su jógee ci moom jàll ca keneen kooka du xaraam ci moom su la ko mayee sañ ngaa jël su ca tabaxee jàkk julli di danañ ci julli su ca takki jabar jabar lay doon waaye nag Euh, maanaam su mayee nit mu takk jabar laa bëgg a wax su mayee nit mu takk ci jabar loolu jabar lay doon waaye moom ci jëmmi boppam ay jëfandikuy boppam munu cee def lenn loo xam dana ci am tiyaaba maanaam su ca tabaxoon jàkk julli dee danañ ci julli am ca tiyaaba ñoom waaye tabax jëm ko tabax moom du ci am tiyaaba ndax léwut digganteem ak ci moroomam lii mu wax kon foofu lu dugg moo koy jaay sàngara ñoo bokk atte moo koy jaay lépp lu xaraam ñoo bokk ab atte bépp xeetu dépense boo xam ne def na ko ci nit donte moom du ko jëriñ dara àllaaxira mën na caa am sax bàkkaar waaye teewul nit ñi mën nañu ko jëfandikoo. kon alal ji ko jëkkëram jox te léwut moom ndaw si lew na ci moom su fekkee ne araam yi wu mel noonu su doon nag daa saa ci alal jàmbur wala yu mel noonu kooku du lew moom du lew ci du lew ci am jabar kon loolu ñu war koo xam ne su fekkee amul meneen pexe daal moom ndaw si alal jooju mën na cee lekk waaye su amee meneen pexe nag la chaque ne alal ju mucc ci li ñuy tudd moo gën alal joo xam ne dañuy wax ne araam na ci genn wet nee na dafa bëgg a takk soxna jigéen ji eh, neena na moo jigéen ji yëpp ñu nga France ndaw soos yi nee na baayam dundatul waaye ay kilifa mu fréeram yi ko war a maye ñooñu ñu Mali nee na nag yaayam balaa yàgg tey bëgg a ñëw France mu njëkk a laaj ma ne ndax dagan na mu continuer di wax ak ndaw soos yi ci téléphone wala ci moyens yi nga xam ne ci li ñuy moom waa mu teg ci dafa doon it ku jàng bay door a jeexal te amagul ab liggéey maanaam bu dee ci wàllu alal daal jékkagul moom pour takk jabar waaye nag daa bëggut a bokk ci ñi nga xam ne dañuy laayee ne awma alal moo tax du ma takk jabar mu ne ndax xam na ne yàlla mooy wërsëgale te bu ko ñaanee wërsëg mën na ko may wërsëg bu takkee jabar alhamdulilah eh, la ci jiitu mooy ndaw si kon ña ko war a may Mali lañ nekk waa ji mi ngi France ngir sëy boobu mën a wér faaw ñooñee nga xam ne ñooy ay awliya am muy ay kilifaam ñooñu ñoo ko ko mën a takkal sëy ba wér kon loola na xam ne wérug sëy ba ca ñooña la takku ginnaaw jotante naag ndaw si ba xamante nañ bëggante nañ kon def formalité yi tax ñu may ko ko su fekkee ne mën naa yor jabar loola mooy li ca war a sus waaye continuer gi nag di wax ay téléphone ak ci jumtuwaay yi ñuy waxante tam doon ab jaamur ci moom te ñu bokk nekk France ci koo xam ne ay kilifaam nekku fa loola mën naa dem ba indil leen fitna joo xam ne bëgguñu ko woon kon lu mel noonu daw ko mooy doon la jaaru téye boppam ba mbir ma di mën a sotti wala mu ñàkk a sotti leneen li ci des mooy li mu wax ne jékkagul ci wàllu alal ba mën a yor soxna loolu ma sa bàyyi xel la ndax e bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax ne yaa maachara shababi man istataa minkum albaata e yéen ndaw ñi képp koo ci ma ne mën naa takk soxna na ko def albaa buñ ko waxee mooy kattan ci wàllu alal boo xam ne mën naa yore ndaw si yoral ko dundam yoral ko am koddam yoral ko ab dëkkukaayam ndax yooyu mooy yi sharia waral jëkkër ji war ko fàggu beneen bi ci des mooy war ko mën a yor ci kattan gi dox diggante ñaari way dencante diggante góor ak jigéen kooku moom mooy firi albaa su fekkoon ne alal amul benn itte ci ab sëy kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du wax loolu du ko def ab charte moo tax mu ne wa man lam yastati koo xam ne mënut fa alayhi bi sawm kon koo xam ne mënut googu xamal ne fa muy waxee mooy ci wàllu alal waaye su fekkoon ne ci wàllu doon góor la wala ñàkk a doon góor kon du wax ne fa alayhi bi sawm parce que koor gi du amati benn sens bu boobaa kon fa man lam yastati ku amul alal fa alayhi bi sawm kon nay woor fa innahu lahu wija ndax loolu mën naa damm bànneexam bi nga xam ne war na koo mën a dugal ci ak mooy yàlla wala ci ay caaxaan ah dañu nag wakkiirlu ci suñu borom tabaraka wa taala dafa am place daa am lu ñu tuddee wakkiirlu am lu ñu tuddee bayliku ndax dugg ci loo xam ne xam nga ne lii mënoo ko di séentu ne amaana yàlla dana ma wërsëgal loola xëy na bu amee ñu ko mën a def seen pas-pas xett li leen bañ mucc ci bi ñëpp ndax wax nañ ne salafu ñàkk nga mën ngaa dimmanikoo takk soxna ndax yàlla woomal waaye loola kat ay pos-pos la yoo xam ne ñëpp amuñu ko te it jamono nga nekk yoo xam ne jëmmi am loo yor dafa doon lu mënta ñàkk moo tax bala ngaa dugg nag ci néegu si responsabilité bu mag a mag a mag la bu nit xasee ñëw nekk ci sa suuf nga nekk responsable am yem soxla yépp nga war koo def te fekk nag yoroo dara man ngaa dem ba mere koo xam ne ku la defut dara la te yaakaar yooyu ma am jàpp ne rek su ko takkee xéwal yi day daal di ubbiku sottiku maanaam ab napp it mën na caa jóge nag safaan mën naa xam ma tax nit ki ngir wàccirloo mën a wér daal day jàpp ci sabab yi def li nga xam ne moo doon li jaadu nga xam ne def nay calculam ba jàpp ne lii kuy wut soxna lii war nga koo am lu gàtt-gàtt nga fexe ba am loola door a takk soxna soo ko defee nag li ci def nga bàyyi ko sa boroom su boobaa loolu da ak doon ak wakkiirlu gu wér a wér a loola lañ koy conseillé su fekkee dañ koy laaye biir waaye mu bañ a dugg ci loo xam ne lu mënut la bu ëllëgee muy mere ku ko deful dara wala muy dugg ci ab sëy ba noppi muy wëlbati ko di amaat ay gàllankoor ci kaw ne eh, amut lu mu yore soxnaam wallahu taala alam kon loolu mooy li fi jotoon a ñëw ci ay laaj tey ñu ngi del ci wax di sant mboolem mbokk yi di sant sunu mbokk mi nekk ci xarala bi muy jaabir wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi déggandoo loolu muy fatawa ñoo ñaan yàlla na yàlla fayal ñu docteur Mouhamed Ahmad Lo képp koo xam ne déggul say laaj na xam ne incha allahu rabbi du dox jeexul wax si du jeex di nga di dégg sa laaj incha allah kon dañuy bàyyi suñu mbokk suñu stage stage Omar Ndongo fàttali ñu tuuti rek ci li des ci waxtu bi parce que dese nañ lu tolloo fukki minute ak benn incha allahu rabbi mbokk yi bu leen ñu fàtte si ñaan ñoo ñaan yàlla na yàlla ñu docteur Mouhamed Ahmed Lo kon euh, Omar Ndong du fekkee pare nga incha allahu rabbi mbokk yi nga fàttali leen dara. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa baad mbokk yi ginnaaw bu nu sant sunu borom subhaanahu wa taala julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla jëm xewal nekk si moom moom ak waa kiram ak saxaabatul kiram yi nga xam ne ñoo ñoo àndoon ak moom ak képp koo xam ne tamit jaar na seen jaar waay ba keroog seen penc yàlla nañ sunu borom subhaanahu wa taala wërsëgal ñu jaar seen jaar waay ndaxte loolu rek moo tax nit ñi nit ki mu taxee adduna ak tamit àllaaxira bu loolu wee mbokk yi eh, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu barkeel dundu eh, docteur ak eh, ku mel na moom koo xam ne dafay woote jëm si sunu borom subhanahu ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla barkeel xam-xam bi yal nañ ko yàlla bàyyi fi ba si kanam kanam vraiment kontaan nañ trop si si ci bi kon nag war nañu tamit incha allah képp koo xam ne ku pare dem bay laaj dara si diine bi waroon tamit incha allah ñu la tontoo tamit nga war ko jëfee kon yal na yàlla wasugal tamit lépp luñ dégg fii fekkente ne pour jëfee la ñu jëfe ko su fekkente ne pour wàllu tere la woon tamit yal na yàlla wasugal tamit ñu bàyyi tere yooyu. kon mbokk yi euh, Cheikh Bukhari lu mu wax euh, ci wàllu li nga xamante ne moom mooy euh, ci wàllu tamxarit bi nga xam ne moom lañ nekk fii xam ngeen ni tamxarit bu ñëwee bari na ay yu bari lu ñuy def si tamxarit fekk loolu yëpp bokku si. buñ dellee si buñ delloo si li nga xamante ne mooy eh, cosaan diine bi bari na liñ si njàmbaas léegi loolu bu njëkk amuloon mooy yenn saa yi am di nga gis ñuy bind ay ay tuuti ay xuruuf ñu koy def si ay kayit ne la léegi booy lekk sa sa commencement euh, dànk bi ngay jël moom ngay moom nga si laxasaale après nga lekk ko kon loolu yëpp euh, ñeneen nii tamit dugg si kër jaambur yi di leen siif ak yu mel noonu ñu wax taajub ak yooyu dañu xam ni loolu du lislaam euh, li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci wàllu euh, tamxarit lu leer la te lu simple la mooy euh, woor ci bis bi woor ci bis bi waxuñu leneen li nga xamante ne tamit dafa am umma bi ñu dañu am ñaari groupe boo xamante ne ci wàllu tamxarit ni ñu ko gisee mooy ci wàllu siya dañuy gis ne Euh, bu tamxarit ñëwee dañu war a génne seen deret maanaam dañuy war a fexe ba euh, génne deret seen yaram lu waral loolu ñu ne léegi dañuy naqarlu bis bi nga xamante ne euh, alxasan Huseyn mooy génnoon na àdduna kon loolu il faut ñoom tam ñu naqarlu loolu bu ñuy xool day mel ne dafay juyoog li nga xamante ne moom mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam doomam doomam yëpp lu dul Faatima ñoom ñëpp dañoo génn àdduna laata mu fi jógee mais dégg ni fenn fu mu wax ni bu heure boobu ñëwete wala bu bu tamxarit ñëwete nañu manifesté wu ñu wane ni sunu naqari ci loolu ndaxte jullit dafa war a gëm dogal sunu borom subhanahu wa taala dafa bokk dafa bokk aussi ponk gëm yàlla mooy al imaanu bil qadr yaani nit ki mu gëm li nga xamante ne lépp lu sunu borom subhanahu wa taala dogal ci kawam mu ko gëm mu xam ne tamit li si yàlla kon loolu musiba bu wàccee si yow musib mooy eh, wàññeekoo bakkan mooy ko xam ne sa mbokk la bu jege moo xam doom wala tamit ku muntu noon si yow mu génn àdduna kon loolu musiba la li nga war a def rek mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu nga war a def ànd ak muñ kon loolu mooy li nga xamante ne mooy sunna bi mais eh, génne deret si sa yaram comme waa chia ñu def loolu saxul si lislaam beneen groupe bi ñoom dañuy dañuy nekk loo xamante ne si wàllu content comme waa Sénégal li ñuy def lu si ëpp si waa Sénégal euh, dañuy jékki-jékki euh, di dugg si kër yi di kontaan wala tamit ci am na yenn béréb yoo xam ne dañuy dawal ay fas ah, di def manifestation boo xamante ne bu rëy bu rëy la te loolu bu ñuy xool su fekkee ne dañuy wax ne seetu yonent bi alayhi salaatu moo génne àdduna ah xanaa kon waruñu feetu feetu boo xamante ni nag kenn ku nekk si ñun su fekkee sa doom génn àdduna wala sa mbokk bu la jege eh, li ñu faral def mooy teg alxuraan déglu lu mel noonu wante eh, daawuñu sa foofu musique wala tamit nekk foofu di feetu kon yooyu su fekkee ne yaa maanaam loolu jubul ci wàllu loo xamante ne xel boo xam ne buy jëriñ boromam kon ñaari yooyu eh, ñaari yooyu daal amul amul si kenn koo xam ne ku nekk si dégg mooy lan Eh, ñi nga xam ne dañuy manifesté wu génne deret seen seen seen yaram ñooñu eh, teguñu fenn amuñ si benn dalil lu dul ñu koy defee si seen réer ñi nga xam ne tamit dañuy bànneexu di tamit di di feet ah ñooñu tamit eh, li ñuy def ñoom tamit booy xool amuñu benn dalil kon li nga xamante ne moom mooy digg doom bi mooy xayrul umur wasatuna mooy woor bis bi nga xamante ne moom mooy juróom-ñeenteel bi ak tamit fukkeel bi ndaxte ñaar yëpp sax na ni yonent bi alayhi war na benn bi beneen bi mu ne bu fekkee euh, at bi fekk nam fi dinaa ko war kon loolu nekk sunna boo xam ne sunna iqraar kon da ko saxal mu ne su fekkee ne déwén incha allah dinaa war euh, asura bi kon alaa yaa taxal loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunna bi mooy woor des des yëpp bokku si dem ñu lay bindal fi ay ay ay saafara yooyu su ko defee eh, ngay tuur si buntu kër gi wala tamit lekk cere yi ñuy naan ku suurul da ngay suur safara si eh, maanaam dañ lay eh, solal safara yowmal xiyaama loolu yëpp saxul bu tam xarit bu la neexee nga lekk say ginaar bu la neexee nga lekk sa sumbi l'essentiel bu la neexee sax nga bañ a changé bi nga daan reer kon loolu lekk yi ñu lekk yëpp amu si lenn loo xamante ni lu sax si sunn yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu xool xadis abi hurayra radiyallahu anhu loolu daf ñu jàngal ni E, sunna bi mooy que mooy e, mooy woor bu ñu xoolee hadis bi an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami ba'du ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salaati ba'du faridati salaatu llayl rawahu muslim abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne li gën ci koor ginnaaw weeru koor mooy shahrullahi al muharram mooy e, e, mooy weer yi nga xam ne yu ñu ormal la bokk na si yooyu weer mooy e, mooy weer bi ñu nekk ni mooy tamxarit kon weer tamxarit lan moo si nekk sunna mooy mooy koor comme ni ñu waxee mu fekkee tamit mu ne yeneen si bi alayhi salaatu wasalaam mu ne julli tamit li ci gën mooy julli julli guddi ndaxte julli bi di mbokk yi dafa am secret bu mag bu si nekk euh, rawatina tamit koo xam ne ko am problème problème boo xamante ne nga am jaaxle bu rëy rëy li nga war a def mooy nga jàpp nga bàyyi ba nga xamante ne troisième tiers si guddi bi eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne guddi bu nekk sunu borom subhaanahu wa taala dafay wàcc ba bi nga xam ne moom moo jege àdduna bi dafay laaj kan mooy ñaan ma may ko kan mooy jégal ma jëggal ko kan moo tamit euh, ku soxla euh, ajom fajum faja ko kon yaakaar nañu ñëpp soxla nañ suñu aaju faju kon bu boobaa su ne ñoo ngi e, pratique li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal kon bu boobaa mbokk yi soxul du ñu jëm si benn njabarkat njabarkat nag buñ ko waxee mooy koo xam ne képp koo xam ne ku mbubboo mbubbu sëriñ tamit di wone ni ci kaw sëriñ nga mais ci suuf yaa ngi yaa ngi doxal njabar kon yow ak ki nga xamante ne mooy njabarkat yi yéen yéen bokk att att boobu mooy lan su fekkee yow ku ñëw si yow ma diw nga ko génneel ma diw si place am nga def ko mu génn si place am kooku fekkee yaa ngi boobu boobu sëriñ tamit xamal ni yow yaa ngi def njabarkat déggantaan te njabarkat yonent bi alayhi salaatu salaam eh, daf ñu jàngal ni kooku lislaam da ko rey lislaam dafa rey njabarkat si lislaam atem mooy ñu rey ko ndaxte yëfu yéefar lay def sunu borom subhaanahu wa taala dafa woon ni wa maa kafara suleymaanu walakin ash-shayaatiina kafaru yuallimuuna annaasa as kon li nga xamante ne Souleymane alayhi salaatu wasalaam juif yi biñ ba commencé génne seen fen yi ñu ne Souleymane de weddi ndaxte cheytaan bi ñu génnee xam-xam bi nga xamante mooy xam-xamu njabarkat yi ñu jubbu ko jiñ waliyaas billahi sunu borom subhaanahu daal saxal ko ni mu ne ah daal vraiment ko gëm yàlla la woon kon cheytaan yi ñoom ñoo ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy weddi seen borom subhaanahu taala ala yataal foofu dafa gudd li ñu bëggoon wax rek mooy tamxarit daal la si nekk euh, ci ay sunna mooy woor ci bis bi nga xamante ni mooy bisu juróom-ñeenteel bi ak tamit lu si bis bi nga xamante ni mooy juróom mooy fëkkeel bi kon lu si des yëpp bokk si euh, boo ko defee tamit doo am tiyaaba amaan sax nga am si bakkaar su fekkee ne da ngaa dem kër jàmbur jël bagaasam kon booba euh, yaa ngi jël ak jàmbur fekkee tamit da nga def bida tamit def loo def si bida la koy delloo suñu borom subhanahu wa nangu jëf ji nga xamante ne mooy bida kon xam na incha allah waxtu bi mu ñu bëgg dab eh, waa xam si din ñu ngi leen di nuyu di leen at bi nga xamante ne moom mooy atu jullit mooy tam xarit bi nga xamante ne moom la calendrier jullit di tàmbale eh, ginnaaw bi nga xamante ne def nañu eh, comme comme à partir de hijra yonent bi alayhi salatu wasalaam lu mu jàngale si wàllu tam xarit mooy woor kon yal na yàlla may eh, kattan ak tamit eh, eh, encouragement ñuy woor ñuy wattandiku lépp loo xam ne lu ñuy wax bida ak tamit warafaat yi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh